yasa maa leen di fay alors tous ñebe muy bët si dëgg ak si jaam ak salaama dal ak jaam si Medina noonu la demee Khalifa rappeur doomu Medina bi noonu naafeq noonu sàcc yi ah, sum waa ji tous. tous maa ko léegi nee nga doomu Medina te la ma waroon fii sa teewaay. waaw fi teew en tant que Medina rek comme ni ngeen gisee doomu Medina yëpp ni ñu dajaloo fii xam si point de presse di maanaam ñaawlu. injustice ak maanaam attaque bi nga xamante ni def nañ ko si doomu Medina doomu Medina bi nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Ba Messi yàgg tekki si réew mi depuis 1992 mu nekk inspecteur des impôts depuis 1992 yaa ngi dégg waaw noonu la demee alors tey say président Macky Sall defoon na ko fi DG impo mu servir fa Sénégal cinq ans pendant yoo xamante ni jëlee na budget bi ay huit cent et quelques milliards yóbbu ko ba plus de mille et quelques milliards yaa ngi dégg daf ay chiffres yoo xam ne musul am Sénégal ba tey président Macky Sall nu mu ko dénkee CDC mu fay liggéey liggéey bu mucc ayib yaa dégg waaw ba pare tamit li mu defagum si chiffre si jamono bi fi toogee ak léegi amul benn DG CDC bu ko fi mos a def si histoire bu Sénégal yaa dégg kon kooku suñu ndam la ñun maintenant waaw yaa ngi gis fii nii këram gaan kër maam Cheikh Alhaji Abdoulaye Sy Dabakh fii la jàngee suñu maam Cheikh Alhaji Sy Dabakh moo ko jàngal alxuraan ba pare tamit mu nekk tamit ku am yar ku am ëdëb waa wa maintenant ñëpp bëgg ko te tey si tey tamit maanaam jugee nañ si élection gaa maanaam amoon na ay trahison yoo xamante ni malheureusement Bamba Fall gagné na ko te fois yi ko gagné tamit bëriwul du dëgg te tey si tey trahison yooyu noonu yëpp maam maintenant fii yàgg na am plus de cinq ministres Macky Sall teg ko fi Bamba Fall saawaay miri day génn jubilé du dëgg ma maa ma ñëw rek maa ma ñëw rek maa ma ñëw léegi tey si tey nee naa la maanaam Cheikh Ba moo demax Bamba Fall fu sori ba quand Cheikh Ba maintenant ñëpp doon jubilé ne gagné nañ Bamba Fall est-ce que ay dégg donte yëpp yi amoon kon tey si tey bu ñu demee ba ok Bamba Fall nekkaat maire yaa ngi dem rejoindre Macky Sall askan wi maintenant ñu bëri saa waay xoola dañoo mere Bamba Fall parce que Bamba Fall xëy na daf leen gëmloo woon ni que votel Cheikh Ba votel Macky Sall la. askan wi maintenant boobu ñoo ñëwaat encore làqatu si ginnaaw Cheikh Ba moo tax doole bi demee nii moo tax doom maintenant yëpp si su quoi waaw. la tey si tey maintenant ñëpp benn nañ Bamba Fall ok moom nañ fi falaat Cheikh mi ngi ànd ak moom ñun doom maintenant ñun ñëpp ñi ngi ànd doon benn pour liggéey suñu Médina déggoo lu ñun naw ñu si ginnaaw kenn ku dul xoola Cheikh Ahmed Tidiane ba Messi mooy suñu kilifa mooy suñu leader ñun doom Medina yi echange dégg te tey si tey maanaam moom si boppam moo ñu soññ ni dañ doon benn ñun ñëpp dax maire bi moom mooy autorité bi ñu liggéey suñu Medina yaa ngi dégg mais dafa am koo xamante yi nii gaamal la sumuwaay tekkiwul dara si bëtu sénégalais yi est-ce que ay dégg gars uy ma o oh, defal nii ma uy ma eh, man du ma ragal quoi est-ce ay dégg dëgg bi laay wax lii bud budi ci suuf laay si kaw ñëpp dégg dafa am ku tekkiwul dara koo xamante ni nii benn sàcc la waaw askanu Sénégal gaan ka respecté wu ko ñëpp sàcc nañ ko jàppee Baye Fall barki Demba Ndiaye gaana nañ jàpp doomam mu sàcc ko deux cent cinquante millions est-ce que dégg voilà kon la quoi non mais ma ñëw gaan uy ma Baye Fall uy ma man mun a sama xel danga may déglu est-ce que dégg tey si tey mooy li ma la ma ne la gaan ñun tey si tey maanaam ay nit yu wul dara yoo xam ni xëy na chantage ñuy dundee loolu dafa ñaaw dañ koy lu booy booy maintenant fii amul ngaax amul ragal li gën a ñaaw ñaawlu mooy xamal lan Sénégal ñëpp xamante nañ affaire de chantage gaan mal la sumu waay dafa ñaaw quoi xam nga ay affaire de non da ngay ñëw da nga may defal lii xam nga boo ma ko defulee gaan man la sumu waay ma jug naan damay yàq sa der dama lay tuumaal dama lay sosal lool dafa ñaaw du yëfu góor sawa muy tekk fii si réew 1992 ñoom boobu saawaay ñu ngi nekk añaam booy est-ce que yaa te tey si tey maanaam góor yi nga xamante ñu ngi nekk añaam di sàmm seen i nag ñooñ ñooñ daan topp di leen dunguru pour am dépense xam nga saba du moroom moom quoi président Macky Sall nax message bi nga koy jox ñun doom Médina yëpp mooy maanaam na remettre le points sur les i yaa ngi dégg régler baadoole yii nii nga xam ne ay chantage ñuy dundee ak ay tuuma ak ay sos di jéem a xajamal yaa ngi dégg Cheikh Ba saawaay xoola plus de huit mille et quelques voix loolu Macky Sall mosu ko am fii biir Médina bu ko fi amee gaan ginnaaw yàlla Cheikh Ba moo tax te ma ko liggéey ñun ay doom maintenant nañ ñun lijjante wuñu politicien ñun xam lan la ñu lijjanti suñu Médina quoi te Cheikh Ba nañu gis mu ñëw maintenant nekk autorité boo xam ni bëgg na doom maintenant yi wàccee boppam am yar ak teggin xam nga ànd ak jeune maintenant yëpp pour maanaam xam nga ñëpp am développement ñëpp gis seen bopp si même réew quoi xam nga yasaay kon Cheikh Ba mooy ñun ñun ñooy moom ku ko saawaay a wax sax ñun la laal quoi xam nga looloo waral mobilisation bi fii gaa yëpp teew fii moo tax Khalifa rappeur doomu Médina bi moo fi taxaw yasaay